li mooy wax juge si sénégalais yi ñooy juge ay sénégalais yu nga xam ne fii lañ juddoo màgg fi jàng fi dëkk fi ci biir sénégal di déglu sénégal xam situation sénégal ñu ne leen bu ñu lu mel ni ñaari décision mandat de ak condition euh, euh, contrôle judiciaire contrôle judiciaire bi mooy bu fekkee ne yow leer na ne kii boo ko placé sous contrôle judiciaire du yàq sa liggéey bi ngay def pour xool lan fan la dëgg gi féete moom dañu lay recommander. te gis nga ne Sénégal tey avant lii di am gis nañu ne dañoo orienté wu ci ne bëggatuñu tëj nit kaso ba créer ay bracelet électronique donc tey bu juge bi jëlee analyser situation bi ak nu mu ko mën a ata analyser xool ne lii mënul yàq lii mooy gën a defar liggéeyam jàll jëm ci bool boobu dañ ci dañ ciy sant rek bu ah. fekkee ne libéré euh, en même temps moom mu def ay exigences démb bi muy def déclaration après sa sortie exigence yi bokk na ci peut-être élection présidentielle boo xam ne dafay leer le président wax ne du sampaat ndëndëm mais mu wax lu jëm ci Karim Wade ak xalifa Sall ñu delloowaat leen seeni ay droits ban appréciation nga jëm ci loolu nga xamante ne mooy exigence soo ko teg démb. waaw xam nga loolu bu fekkee ci fàllu wàllu politique la rek. moom dafa am nu mu analyser situation politique bi am analyser nu mu analyser situation sociale bi mu nekk ci ay position yu nga xam ne defe na ne moom mun na fokkos ci dara c'est légitime moom mu def ko mais tey sénégalais yi man ci booru sénégalais yi laa nekk sénégalais yi loolu du seen préoccupation préoccupation bi mooy trouver des solutions pour les jeunes déglu Macky Sall nekko ci ñetti at yi nga dese ci nguur gi na nga liggéeyal Sénégal liggéeyal xale yi nga xam ne il faut soixante dix pour cent de la population trouver ay solution jox leen espoir que ne biir Sénégal fii mun nañ fi dund tekki fi te man loolu lu ma gëm la parce que ñun ñëpp fii lañ juddoo màkk fi gert tekki fi mooy am nay conditions yu nga xam ne bu ñu ko gënee yaatal gën ko yaatal gën ko yaatal ñëpp dinañ ci xej man ci fànn boobu laay laajte naa ku taxaw toog sa taabal ñëw ñun ñi Sénégal jëm boor bi ñeneen ñi jëm boor bi peuple sénégale bi la doon waxal man defe naa waxul ak man parce que loolu muy wax tamit. pouvoir bi la doon waxal. non jëm ci exigence yooyu. waxul ak pouvoir bi. parce que mhm. pouvoir bi booy wax ak pouvoir bi waxul ak pouvoir bi politicien ay politicien la. moyen lañ ko jox mooy moyen état moyen état yooyu buñ ko ko joxee da ciy liggéey keneen na ku nga xam ne joxuñu la moyen amoo moyen ngay wax ne damaa bëgg moom dafay wax mu bëgg. beneen politicien wax mu bëgg am na yeneen politiciens yu wax moom benn politicien la du moom dong mooy politiku Sénégal du moom mooy rek politicien Sénégal moom door dam la jot gisaguma beneen parti politique bu topp ci yooyu gisaguma ci discours boobu discours bu nga xam ne discours ku bëgg a liggéey Sénégal tey nga wax lii suba non li may wax mooy fi ñu jëm ñun gouvernement bi fi ñu jëm foofu moo ñuy indi waxu politique bi ku mu neex nga wax politique bu ab. waaw mais monsieur le ministre euh, kaddu yi mu yëkkati bu nag daf ci am kaddu yoo xamante ne munoo bañ ne daf ko jagleel président de la république bu demee bu tudd légalité bu mu jàpp ne am na ko moom jiitu mais moom gisul légitimité boo xamante ne président de la république am na ko yow loolu ban lecture nga ci am. xam nga xam nga dama la wax rek dama la wax vraiment Sénégal événement yi ba mu amee gars yi Sénégal lañ président lañ wax na wax. ñëpp dañuy xaar président la wax président new leen ñëw leen ma déglu leen ma ma wax sénégalais yi ñoo ne président waxal kooku légitimé ëpp na ko li Sénégal am ci li nga xam ne fondement la bu nga xam ne ku fi ñëw danga koy bàyyi fii mooy suñ diine muy jullit yi muy catholique yi muy animiste yi ñoom ñëpp Sénégal président la ñu jàkkaar loolu ñaan ko ne ko yaay njiitu réew mi. loolu on a disconvient. non non non yaa wax mm-hmm. mooy représentativité. ay ci politique non damay wax rek. Mm-hmm. damay tontu ci légitimité bi xam nga man. nee naa la du ma ñun du ñu duggati ci ay wax yu nga xam ne ay waxu euh, luy yàq la. Mm-hmm. ñun ci avenir la ñu positionné ma ne légitimité lu la koy conféré xam nga lan moo la koy conféré mooy nit ñi parce que fii démocratie la suffrage universel mooy fal. président ay sénégalais ko faral yàggul dara tey ba mu ñëwee sénégalais yi dafa ñëw ba mu waxee Fatou bintu président li mu wax am na changement ci situation bi amamu ko président benn yoon la wax waxul ñetti yoon ah, boobu mu commencé ba léegi benn yoon la wax ñun na ko wax am na changement amul changement.

xam nga keneen bu bu waxee bu ko neexee nga wax apaisement bu ne a wax parce que amoo mandat wu peuple bi amoo légitimité. mais peuple boobu ngay wax entre deux mille ak léegi cinquante huit pour cent yooyu nga xam ne wax nga ne ñoom ñoo tabb njiitu réew mi ak li ñu bis bërki démb ci manifestation est ce que mënuñu jàpp ne mi ngi commencé effrité wu. ñooñu nga xamante ne euh, euh, mënuñu jàpp loolu. yow xam nga luy république nu muy fonctionné. Mm-hmm. xam na ñun constitution la ñu am bu ñuy fal du ñu fal tey d' accord du ñu fal tey suba ñu dindi. dañuy fal pour cinq ans sénégalais yi ba ñuy dem di fal. effectivement dañoo fal légitime Sénégal président moo am légalité am légitimité xam nga wax bu bu dëngee ñun tukkuloo dañu ne wax bu feebaree nga dégg-dégg wër man politicien ma ne constitution bi gëm naa ko ci lay compétiré dem déposer waa ji gagné légalement te légalité bi dañuy wàññi ñan ñoo ñan ñoo ëppale waa ji ëppale ma nangu ko te xam naa ne juróomi at lañ ko fi teg ma ne man du ma amuma lég amul légitimité fan la légitimité nekk non loolu waxu politique la taabal boobu yëpp ñoo fa toogoon bu ñu leen joxoon ñu wax kenn du ci wax wax jooju parce que foofu ay politiciens yu xam Sénégal ay patriotes dëgg lañu ñuy xeexal Sénégal depuis plus de quarante ans xam opposition xaar ko xeex ñu gañe leen ñu dellu xeex dafay stratégie ba gañe ci jàmm réew mi mën a taal dëkk bi taaluñu ko pour seen intérêt personnel ñooñu kuñ ci waxoon loolu doo dugg ci lan mooy légalité ak légitimité xam nga fi ñu toll nii Sénégal dafa egg niveau de maturation boo xam ne am ay dégg-dégg am dégg-dégg boo xam ne du ku nekk rek boo jógee dangay wax nga defe ne li ngay wax parce que am na ñu lay yuuxu ci tàng tàng bi mais sénégalais yi dañuy déglu bu baax a baax li ngay wax mais est-ce que yéen tamit jàngatu leen ci euh, euh, que manifestation bi ak mbooloo mi nga xamante ne ñoom ñoo génn est-ce que indiwul jàngat boo xamante ne war ngeen ko ci am également bu weesoo li ngeen wax ci ndaw yi jàngat euh, je te pose la question laissez-moi terminer s'il vous plaît monsieur ministre mooy rupture boo xamante ne confiance tey est-ce que remettre loolu en cause tey bi Sénégalais yi am entre le pouvoir tey ak ak la population bu gisee mbooloo mi nga xam ne moom moo génn wax ji mais mhm. la ñun ñi ba ñuy wax man liir naa réseaux sociaux yi ah. xale yi ak ñëpp suñuy doom lañu ah ñii suñuy doom lañu nekkuñu en rupture ak ñoom suñuy doom lañu ñu ay suñuy ñun ay politiciens lañu dañuy nekk auprès des populations ñu nga xam ne dañoo bénéficier de leur confiance. dañuy ñëw suñu kër ñu leen di fekk di leen seeti di waxtaan ak ñoom dugg seeni réseaux sociaux man xaw ma ñaata xale ak fu ñu mënti nekk ak réseaux sociaux yi may wax ñu ngi may wax na président wax na président wax na président wax. loolu bëgg-bëgg la mais ba mu jotee président wax na boo ma nee rupture de confiance am na man jàppewuma ko noonu te ñëpp jàppewuñ ko noonu ñun li ñu jàpp mooy que ne y'a un problème de jeunesse bu posé wu dans un pays en développement avec des moyens limités dirigé par un président qui se bat pour la jeunesse qui est prêt à aller yëkkati def lu mu mën pour la jeunesse amul am na ay problème de moyens mais tey gis na ne loolu mu def yëpp mun naa am ak problème bi ni mu posé wu. très il faut ñu redoubler d' effort. mu ne leen dinaa redoubler d' effort. loolu laa gis nañu xaar. ba ñu gis ne effort yi ñuy def. lan lay jur ndax dina regle problème mu bi am duñ ko régler. loolu ñun xam nañ ko mais gisuma man liiruma ci rupture de confiance. kooku nag. peut-être situation bi. ku nekk nga wax nu mu la defee. te damaa jàpp ne question journaliste rek yow sa bopp xam nga ne li génn am démb bët ak tey. bi mm. président waxee ba léegi li am ci réew mi xam nga ne rupture de mm. conscience. très bien alors monsieur muy euh, médiation bi ñu nemmeeku ci sunu kilifa diine yi njiit réew mi ba muy discours déjà wax na ko euh, ñu am ay kilifa diine yi nga xamante ni euh, seen taxawaay ñu ngi ko doon xaar itam gis nañu ne taxaw nañu taxaw bi nga xamante ni moom lañ doon xaar alors naka nga jàngatee justement taxawaayu kilifa diine yooyu ci situation yu mel nii. xam nga démb nit koy wax dafa am dafay am lu muy génnee sa xol man li génn sama xol ba ba ma gisee keroog euh, sëñ Mansour ibnu Abdoul Aziz Dabakh toog ci wetam satu sëñ Touba toog ci wetam sëtu Cheikh Cheikh Omar toog ci ginnaawam yeneen këru diine ci toog dama ne ah ba pare ñu wax ba pare ba ñuy wax ñu ne ñoom ak clergé bi ñoo bokk gis-gis loolu ma ne tey fii Sénégal yëpp dajaloo ñoom bërëb boobu ñu toog Sénégal yëpp muy kuy opposition muy kuy pouvoir ñoom ñu taxaw ni Sénégal rek moo leen dor li ñu yëkkati mooy lii dañuy respecter constitution bi respecter légalité respecter lépp mais del réew mi jar na nit ñi def lu mu war pour ñu am consensus am jàmm ak salaam def nañ man am naa lecture boobu laa amoon te dama sant yàlla ba fekkee ne lecture lecture boobu moom mooy lecture bu président waxuma ceeg moom de waxuma ceeg moom mais gis naa ne moom ci waxam gis naa ne wax na ne ñoom lim ne ñëw nañu wax ak moom ñaan ko dal ci réew mi moom dina defay effort wax naa ngin ñi dina def dina li mu waxoon ne noonu lay liggéey doon ko reprendre. Moustapha nag xëy na ñenn ñi di wax ne njiitu réew mi bu jàppee bu ko kilifa yi diine ñaane du bàyyi. kon mu mel ni dem discours am. xam nga xam nga waxtu xam nga waxtu bu ko ñaanee du waay bàyyi xam nga yooyu ay wax la. Mhm. xam nga ay njiitu réew mi bu ko kilifa diine ñaane mu nangu ak benn man bokk naa ci këru diine yi man gisuma xalif général bu nga xam ne day wax ak président rek ay ñaanal ñaan naa la defaral ma lii affaire mm-hmm. non ñoom ak président dañuy waxtaan mm-hmm. dañuy waxtaan parce que charia li mu leen wax dafa yàlla daf leen wax borom diine na déggoog njiit njiit yi na leen déggoog ñoom kilifa aadam loolu lu ñu gëm la ñoom lu ñu xam la man gëmuma loolu waxu ci biti la mais xalif général ñëw na di wax ak président non li ñuy représenté ak ñoom fi ñu ko teg ak ñii leen topp li ñu leen topp ëpp nañu seen bopp di ñëw di imposer di wax dañuy waxtaan nag ku nekk jox point de vue am te man xam naa ne bu leen bu ñu waxee président bu leen président waxee dara président xam nañ ne président dootu leen du du leen du leen neenal dina leen wax li mu xalaatee dinañ ci génn bu fekkoon ne président bu ko ñiitu diine yi nañu wax rek wax ju sell bu fekkoon ne ñiitu diine bu ñu ñaanee président président du leen du leen nangul loolu mooy dootuñu ko ñaan kon bàyyi nañ ko ñaan bu yàgg président ba mu nekkee nguur géeg léegi jot nañ neuf juróom-ñeenti at ñu ne ñu ngi koy wax ak moom ba léegi te ñu ñaari fan ñett ñu wane seen i tam ñëw ñaan ne wax nañoo président ñaan man loolu laay gëm xam nga fi ñu toll nii fake news si yéen sax da ngeen a war a commencé ci comme télé yëpp ah parce que télé bu màggeen maa leen di ñaanal ngeen gën a jëm kanam mais da di def ay émission di wax lan mooy fake news. parce que télévision yu monde yëpp am nañu émission bu nga xam ne di expliquer nit ñi lan mooy fake news parce que tey réew mi fu mu jëm. adduna bi fi mu jëm adduna bi fi mu jëm dafa am ay intérêt yu nga xam ne du intérêt organisation yi ni mu demee nii ci fépp la jëmee nag. pour organiser tey organisation àdduna bi ni mu dem mu amay état amay organisation internationale ñit ñi di demee nii ñoom bëgguñu boobu système système boobu bëgguñu ko am na ñu koy wax mais xamuñu sax luy xeex système bi parce que boo ko xamoon tey système bi nga xam ne mooy dundal juróom juróom ñaari milliards yi nit ñoo ci nekk ngay ne man damay xeex système système bu nga xam ne am na ak lu mu moom inf lu mu am na difficulté ah, mais mun nañ ko réformer ci biir te système bi day réformer wu tout le di jur bees di innover am na ñu nga xam ne amuñu intérêt boobu dañoo bëgg lépp daanu ñu commencé waat le kaw am na ñu koy expliquer donc te loolu fake news yi ñuy def yore utiliser internet di wax lu ci neex di defale di jële image yu nga xam ne daaw la woon mbaa daawaati jéeg génne ko na xale yi yooyu il faut que ngeen di def yéen émission man defe naa Sénégal émission télé télévision yëpp dañoo wax émission chaque jour ngeen jël dix ne gars yi tey fake news bii moo fi génn lii fake news la def leen ci xal nii la nekkee fake news nii la nekke fake news. am am